ba tey yemook fukki fan ak ñeent ci weeru sulet eh, si atum ñaari junni ak ñaar fukk ak benn dëkkub Cambérène yeewuwaat yamaat ci beneen jiye boo xamante ni amoon ci weer yële ñu génn lan moo xew ñaari xale yi ndaw yu góor ñoom ñoo ñàkk seen bakkeen ci liggéey bi nga xamante moom lay agir di def ñu daanu ci pont bi nga xamante moo nekk ci wetu jàmmalay Sina Issa Lô lay fii ci Cambérène ci littoral bi bi ñu ñëwee nag fekk na xale yi yor benn marque oto 405 si oto boobu lañ duggoon oto bi daw ba dugg ci kamb gi ñu daanu ñoom ñaar dee déglu maire Cambérène di Mamadou Samb kàddu yi lay yëkkati. Eh, li fi am tey jii tey di àllarba eh, fukki fan ak ñeent si weer wii eh, lu tiis la lu metti la waaw ndax oto bu jógee booru golf ñëw ba si pont bi pont wu Seyna Issa Rohou Laye bi mu daanu fi. Eh, loolu nag tiis na ñaari xale ñoo si nekkoon kenn juddu ku judd 85 kenn ku judd 87 yàlla dogal ñoom ñëpp ñu ñàkk seen bakken ndax xam naa si guddi la am et eh, ñu fajar gi leen lañ ko gis biñ ko xale yi gisee daw nañu pour jéem leen secourir waaye fekk yàlla def na li gën e muy lu metti lool nag lu metti lool chantier bi xam naa la ñu war a gën a sécuriser waaw ndax oto bi bu fekkee duggul woon ba si point bi ba daw lu toll 200 mètres ba 300 mètres kon du egg si fii bay daanu donc dañ ko war a tëj tëj ko hermétiquement oto du fi mën jàll doo fi mën jàll tëj ko à l'entrée comme comme aussi à l'arrivée te aussi bloc pierre yi nga xam ne ay tonnes lay pesé bu demee ba oto cinq di mbëkk blocu pierre buy buy def ay tonnes mu daanu xam ne kon xëy na li mu doon daw bari na waaye aussi bloc bi fi ñu ko teg woon tamit warul nekk foofu ndax dafa cate bu catewul woon da koy mbëkk rek mu diree mu su ko diree amaana oto bi mën na freiné waaye bu catee bu ko mbëkkee ñoom ñaar ñëppay dem moo tax AGEROUTE woon nañ leen léegi woo nañu sous préfet police ñëw na euh, ba def constat bi sapeur pompier yi tamit ñëw nañu jël nañu évacuer nañu corps yi wax naa sous préfet li fi xew moom aussi xam naa dina jël matuwaayam avec AGEROUTE ba lii dootu fi amati ndax bii mooy ñaareel bi. bale passé am na benn moto bu fi daanu woon moto moto dafa jaar si diggante ñaari pierre yi daanu bopp bi samp si suuf si ndax xam naa euh, choc bi moom tamit dafa dee le coup donc bii mooy troisième mort donc loolu nag eh, war na yem fii na yem fii vraiment Ageroute incha allah daañu wax ak ñoom ñu jël seen matuwaay ba lii am fi chantier bi terminé si jàmm ak salaam kii di Seydina Issa Laye Diop ñu ko gën ko xam si turu say lay moom nekk ci ndawi Cambérène yi liggéey boo xam ne ñu ngi koy liggéey ci dëkk bi ak di ko saytu moom xale bi bokk na ci moom ci wàllu insécurité bi la yëkkati ay kàddoom nee na daal lii war nañ ci jug taxaw war nañ wax ak ajur ak état waaw bisimilahi rahmaani rahim ange bilahi mina cheytaan rahim ngi sant yàlla julli si Baye Laye waaw lii c'est la deuxième fois comme ni nga waxee mais insécurité totale moom chantier bi parce que lii warul mën a am dëw dugee daw ba fële ñëw daw dugg ci biir chantier bi comme ni nga waxee nii l'entreprise Simtram ñoo deful seen liggéey monsieur le nga ne taxaw di ma dégg adduna booy wax da ngay wax dëgg lii dañ ko war a baliser normalement chantier bi bu nga ko waree baliser rek président de la république wala ministre mooy fa war a ñëw ñu baliser ko il e temps on nous respecte lee les Cambrénois te boo waxee ñu ni ñi dañoo bëri wax merci beaucoup. Modou fay di notable ci dëkk bi moom kaddu yi la yëkk ti na ndogal ak yàlla la waaye war nañ ci bàyyi xel bu baax. président bi moom bu ñëwee day am day ñëw rek. waaye fële moom dañ ko war a baare su fekk départ pont bi moom dañ ko war a baare complètement loolu daal laa xamoon lu may wax parce que nii moom musiba la musiba mbaa bu kumbal yal na yal na leen yàlla yërëm te yeexale léegi taxawaay allah xëri seen noflaay ah xam bi leen daal ñoom ñoo xamoon a xam seet nu ñuy doxale xale yi yor organisation bi ñoo xam nu ñu koy doxale ah man nag samay wax du ci bari ñoom daal nañu organiser rek seet nu ñuy doxale kii bi loolu laa si amoon lu may wax mbir mi nag bi mu amee sapeur pompier yi ñëw na daal di ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy policier parcelle daal di saytu mbir mi def constat bi si la ñu jëlee xale bi daal koy yóbbu li du groupe média seet euh, dina andi kaat ak ci yeneen anam incha allah yu gën a leer Pape Ibrahima Jong moo nekkoon ci kàddu gi ki nga xamante ni moo nekkoon ci ginnaaw caméra bi di Souleymane ñu gën ko xam si Jules Dieng